waaye kii jiili na naka lu ma indi la ci kanam ñu leeral rek bu oyofalee ma oyofal mbir bi bu tengalee dama koy tengar ba mu teng. noo koy tengalee ci caayam laay dugg dindi ñor bi bàyyi ko mu daanu. nee na bu arbitre da lay agressé. day wax lu neex rek. def liiru jàll sa waay man ay julli yaa ngi may tooñ de. Ah. maak li eh, li ngay wax bàyyi sa yooyu liiru jàll bëgguma tooñ ko ndax góor la garmi la mais xam nga ne loolu ak lii bokkul xam nga ko. Eh, bokku ñu tax fa ñu jaar bàyyi sa yooyu non non bàyyi sa day wax lu ko neex rek théorie avant pratique ci théorie lañ nekk bàyyi ñu pratiquer waaw ndeysaan kaay ndeysaan moo indi Obeuli tey gëj naa koo gis ci làmb waaye tey boo gisee parcelle mbooloo lii ñu indi nga xam ne am na lu leen yitteel ci làmb am na lu ñu bëgg a jël ci làmb am na cër boo xamante ni soxla nañ ko ci làmb kii mooy Moussa Dioum sama xel dem na ci tàkkusaan yu bari yoo xamante ni bëree na ko ci làmb ndeysaan ku ne bëre naa ak moom moom Moussa Dioum damay dugg nuyu ko Moussa nuyu naa la. maa lay fay. maa yaay am daal. waaw sant yàlla bu baax. ngeen waaj indi seen frère indi seen doomu ndey indi kon koo xamante ni parcelle mbooloo dañ koo yaakaar muy ëbbale nan ngeen ko waaje waaw da nga naan ku làmb yaakaar du parcelle kese parce que tey ñi fi ñëw ñu ci ëpp mbokk séeréer yi la ak ñi doon dajal lit simple gis nga ko léegi ànd naak euh, ordinateur ñu ànd bàkku moom bés mi dafa war a xam tey lim ko jaral dafa war a xam ne dafa bokk ci làmb dafa war a am loo xam ne tey da ko war a jël rek dem ñibbi lépp lu ñu waroon ak moom def nañ ko entraînement yi metti na lépp nekk parce que yaa ngi doon suivre ci net beeg yëpp li ci des nag moom moo ko war a mottali du dëgg mais nag ñu la wax rek nga ñëw rek ne damay jële fii kii mag la war a déedéet na mel ni kuy bëreeg Yékini ñun noonu lañ ko yebetee boo gisee ñu ñëw ñun ñun ñëpp ak sérénité nga xam ne combat bi bëgg nañ ko parcelle mbooloo bëgg na ko ay mbokkam bëgg nañ ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat may ko ndam lu sedd guy. ñëpp nee nañ Pape Yékini dafa foor ci wàllum xeex est-ce que moom entraîné ngeen ko ci wàllum xeex wala jàpp bëre moom ngeen ko conseil waaw Pape Yékini ñëpp xam nañ ne dafa fort ci wàllum xeex mais dafa mën a bëre sax Pape Yékini dafa mën a bëre waaw parce que ñi fi bëreel boo xoolee ñi mu bëreel action yi mu defanteeg ñoom loolu ku mënul bëre doo ko def ñun gëmuñu loolu dañoo gëm ne ndaanaan Yékini la ñuy bëresil tey dañoo waaj li ñu war a waaj yëpp def li ñu war a def yëpp tàllal loxo yàlla suñu borom di ko ñaan mu may ñu ndam. bi mooy ñaata parcelle mbooloo. bon parce que affaire bi dafa tëjoon ñu ngi doog a commencé waat tey mooy suñu première sotti yàlla nañu a lafal cat may ñu ndam waaw di ña tàllal loxo waa parcelle ba ba 26 waa Joof Yoor ñëpp ñu leen di tàllal loxo di ñaan daal yàlla nañu yàlla suñu borom may ndam lu leer nañ waaw loo laa la ñuy ñaan. boo ko xoolee xam ni séeréer la boo ko xoolee xam ni daa am luy nelaw ci moom xoolal laar gi sama xel dem na ci Yaxya Diop Yékini lii la daan indi sama xel dem na ci lancer roi des arènes Manga 2 xale baa ngay wàcc lool gi teg teg teg teg teg teg gi teg teg teg teg gi teg teg teg teg gi teg teg teg gi teg teg teg teg teg gi teg gi teg gi teg teg teg teg teg waaw waaw. ragaluma sant yàlla ak yonent rek sant Serigne Touba waaw. yan bi diisu ndax démb gis naa xale yi. ba une heure sa koñ yuuxu obali obali obali obali. man yàlla ñoo ma bëgg te rek tax kon dañ maa sas góorgóorlu moo ma war fukk ak fayda sant yàlla bu di nuyu sama mbokk séeréer yi. xaw ma seen fay gis naa seen taxawaay baax. yéen ñaar wax ngeen lu ne mais Pape Yékini nee na ñeme woo taxaw xeex moom da nga koy woo ci xeex daw yooru bëreeg moom est-ce que loolu yaa ngi koy sóoraale. waaw yàggatu waaw léegi la. loolu yàggatu rabi xam naa dinañ ma tamati rek. Ah. waaw. ndax sa bopp. incha rabi waneeti sa doomu séeréer laa nag. barke Serigne à suivre. <laughs> waaw. ndeysaan. Gandia lu tax na wànq di dox noonu. waaye gis nga rek gis bee ko laajee rek. ngeen indi. obali lañ ànd. nga indi obali. muy sa frère. yéen ñaar ku ci nekk xam na li nga xamante ni séq ngeen ko yéen ñaar. tey muy bëre combat bu rëy diggante ma Pape Yékini nan ngeen ko waajee ak nan la fas yéene bëree combat. waaye ànd ak suñu mbokk yi rek. ak waa parcelle mbooloo yëpp. waaw di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam rek. non non du yomb moom parce que ay ñaar naataango lañ képp ku yaakaar ne dina yomb ci yow rek yaa ngi nag sa bopp mais ñoo ngi ñaan yàlla moom yàlla may ñu ndam. boo ko doon la mën a continuer ba gagné combat. en tout cas daal li ñu ko war a conseillé moom conseillé nañ ko depuis kër ga instant bi maa ngi nii rek instant bi moom am ma jox eh, jot a jox mais ñooñ delloo nañ avance bi Euh, benn melo bu xaw ma yoof la ak Solomon Solomon men fan yii fan yii mooy wàcc te gaal yi ak Ibamar euh, Ibamar waaw moom dem la mujjee delloo affaire bi essence bi moom maa ngi fii nii di déglu gars yi yaa ma gën a xam. gis nga gars waaye gis nga ne pourtant ni ma toll nii ci wàññi poids laa nekk nii bi ma ñëwee Dakar moom ba léegi wàññi poids laa nekk nii parce que si préparation euh, équipe nationale lañ nekk moo tax dama nek di wàññi poids nii. waaw li du dara lii moom du dara état bi moom du ci dara. am problème. ci loo nekk. ne nii sant kay bàyyi. jili maa ngi fi de. ngeen waajee. lépp moral mystique entraînement lépp ñëw nañ daal ni mbër di pare daal pare nañ noonu incha allahu rek dinañ xeex nañ bëri laam bëri doo lañ wax kon bëri xeex. lan la ñuy xaar li ñuy xaar ci moom mooy jàpp sa daan ko jël bu rëy ñu dem paasal mbooloo incha allah. non dina yomb du yomb parce que ñaari mbër lañ rek. lam moom dara yomb ci mais daal dañuy ñaan yàlla may ndam quoi incha allah. ay ca mbokk yi gis ngeen combat bi dox ci diggante Laurent Ndiago ak xale bi di plateau <laughs> ay waay bis bu ñu doon xaar ñaari yaa ngi nii dis-moi qu'est-ce que tu veux je bi phénomène bi moo ko muy xale bi nga xamante ni mooy Laurent Ndiago waaye mu ngi bëre xale bi nga xamante ni ndeysaan mooy l'espagnol bi Torrebija dinero no Torrebija no dinero ñoom ñaar ku ci nekk indi na li nga xamante ni mooy slogan muy plateau muy Laurent Ndiago ñoom ñaar doon combat boo xamante ni vraiment combat bi tax na ñu bari di ko xaar mu nekk combat boo xamante ni waa Rent production ñoo ko organisé mbokk ñu ngi fii. ci fi nga xamante ni mooy arène nationale combat bi nag bokkoon na ci combat bi nga xamante ni ñëpp a ko doon xaar plateau ndaysaan mu ngi noonu ndaysaan moo jugee fi nga xamante ni mooy rëbës moo jugee fi nga xamante ni mooy plateau moom xale bi di plateau ndaysaan Laurent ngi noonu ñoom ñaar dañoo bëgg bokk fi ñuy taxaw ñaari xale lañ ndaysaan Laurent nee na fii laay taxaw Plateau nee na fii laay taxaw arbitre bi nee na leen coup bi moo leen boole waaye coup sifflet boobu moo leen di tàqale ndeysaan ñoom ñaar gis ngeen ñu ngi noonu ndeysaan Marley ngi noonu dugg si le grand champion ma ngay soox tànk bi te gaañu wut tey <laughs> làmb lépp tegtal la ndeysaan ñu ngi noonu plateau ak ak ak plateau moo leen won ginnaaw moo ngem moo Lagos bi Laurent moom ngeen jàkkaar lool moo plateau cokkaas na ndaysaan cokkaas na ñoom ñaar xale yi ku ci nekk bii mooy sa premier combat ci làmb ji ndaysaan sa premier combat arène bii mooy seen ouverture ñoom ñaar te ku ci nekk war naa ubbee ndam waaye ku ci nekk mun naa ubbee défaite te ñoom ñaar faw ku ci nekk ubbee ndam kenn ku ubbee defet kon actuellement dox ci diggante Laurent ak Plateau ñoom ñaar ñaari ndam dugg si nañ kat mooy génneeg ndam kat mooy génneeg defet ñoom ñaara a ngi noonu Laurent taxawaay bi baax na pied droit la jiital ndeysaan Plateau taxawaay bi baax na tànk càmmoñ la jiital cokkaas na Laurent da nga bëgg cokkaas moytul plateau daa mën a bëre Laurent ki ngay bëreel est xam nga ko plateau daa mën a bëre otul de otul de cokkaas na dóor na ko ndeysaan Laurent li mu attaqué baaxul ndànk sóoraaleel xale bi ñoom ñaar combat bi du yomb. ñaari xale lañ yoo xamante ni ku ci nekk mën naa woon boppam cokkaas na ndeysaan tribune bi jog nañ ndeysaan tribune bi jóg nañ nday tribune bi jóg nañ ndeysaan gis naa ne ko réel <laughs> cey lamb ndeysaan tribune bi jóg nañ ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu di laatoo ba tey door na daw na jëli dóoraat na ku mu ngi dal ku yi mu ngi dal Laurent mu ngi dóor plateau mais plateau da koo bëgg a gis nga plateau Laurent cokkaasaat na Laurent ma ngay cokkaas ma wu di cokkaas Laurent plateau wul ni Laurent ñu ngi bëre Laurent plateau combat Laurent moo la moom nga jàkkaarloo moo la féetee nii. Laurent mooy door. parce que Ato jëli na ko wëli. combat bu mayee loo daan na ko. jël na ko daan ko. Laurent takk na ko. wëli mi war a bëri ba daan na ko. Laurent Ndiago daan na plateau. Laurent Ndiago bi daan na plateau. Laurent daan na plateau. xoolal ma lii Adama Kaay. moom Laurent. muy wane ni xale la boo xamante ni. tollul ni ñoom naam. waaye ni mu toll ci làmb. Siteu toloon na ci làmb bi muy dugg si ñu ne woon mënu koo doon du doon ba tey mu doon ko rek lis njaago bi nii la magam meloon ci làmb bi muy dugg si bi muy toll dañ doon wax ni nii la toll mënu koo doon ba tey doon na ko kii mooy plateau wala kii mooy Laurent Ndiago boo bëre daan ko jël bu amul benn werante ñaari ndam dugg si na mais beneen bi génn xale bi jël na ko waaw waaw Eumeu Sène junior rek noonu ndeysaan Eumeu Sène Eumeu siyaar naa wasaare sama gars bi nga wax noonu sant Seera mel ni gis naa Eumeu Sène bi ma bëggoon gis waaw sant yàlla bu baax ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam incha allah bi nga duggee gis Calme Ndour ban yëg waaw comme ni ma ko doon gisee rek champion la ndaanaan la na jël favori bi rek baar bi ne prix tout le temps tout le temps le moral est sant Seera Fall si la Seera Fall si la bëggee si la Baye Fall santaat Cheikh bu baax a baax a baax a baax encore une fois loolu Seera Fall amul bëgguma man loolu Seera Fall ñor ma. tey daa mel ni bis bi cër wi gën naa weesu niñ ko yaakaar. waaw ni meloon la mel rek nag bu meloon la mel de. di nga xeex. waaw ñun dañoo ñëw pour def lépp lamb bëre la bëre dóor lañ wax. yàlla ñu may ndam daal loolu moo ci ëpp solo surtout. di nuyu sama waa écurie ñi ma àndal mbaytin ñambaan champion yu mag yi ñi bu la teree da ngay am jom barke Cheikh Fall Lamp waaw kii kan la sëriñ la waaw allah rendez-vous on se donne <laughs> yaa dégg <laughs> maar la bu Papa Kan ji la àndal ndeysaan ñu ngi koy jox ay sarax ñii ñoo jóge Géejawaay ñii ñoo ànd moom lii muy def daa bokk ci làmb muy génnee sarax banaana ak pom ndeysaan maar léegi la fay la ay la na setti na samp fii na samp fii nee nañ Marley daa bis bi cër bi mu laaj bis bi adversaire bee toll noonu wala bis bee laaj bis baa ni toll bis baa gis nga mobilisation bi géejawaay gi yëpp def ngir ñëw ànd ak yow. mbaa ah, loolu dëgg waaw non non yàlla tere tolluñu fi ñu amee pression si làmb mosuñu ko am. déedéet xalaatuñ ko sax. Marley ngi noonu ñii ñoo ànd ak Adama. ñii ñoo ànd ak Marley. Adama Bijou. Bijou Bandi Adama taxal foofu. ngeen ñëw indi Marley waa géej waa géej daw ñëw. waaw waa gis la loolu la am ci moom yaakaar rek. ba pare gëm ko wóolu ko ndax moom jàmbaar la champion la Maala mooy suñu vainqueur suñu lépp moom la tey nag bu ñu koy ñëwee dañoo ànd ak confiance ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam ci barke Seydina Muhammad xeex bëre lu bëri ñu jóg. dëgg la. ñëpp nee nañ na ko réel daal. ah na ko réel maa ngi leen jaxatoo bilaay comme ni ko tubaab bi waxee rek la civilisation augmente la femme la volonté ziar ji li sant yàlla bu baax a baax ah bis bi def nañ ko ba pare waaw Combali daa fas yéene ñëw wane boppam ndax dafa am foo xamante war na faa toll ci làmb yow yaa la wax rek xam arbitre ne prip nga xam ne lépp dëgg la ko est ñeme ngaa taxaw xeex ak Pape Yékini mu ne moom bu mu ci am baax la yow yaay choisir xeex wala du ko du xeex du xeex du xeex du xeex du xeex Pape Yékini ngi loolu est-ce li liiru jaan daj gaan Adama Diouf dina ko daj lu ko raw a daj nee na mënu koo daj dina daj tey lu ko raw man de wax dëggu si la sama bakkante joxe naa ko lu privilège naa ko def yow nag moo yore ndam du ma bakku xaw dara yàlla moo yore ndam yàlla na mais lu bërëb bi laaj tey dinaa ko def man wulli naa ko wulli nee na li jaan daj jaam lu ko ngay daj mu nar maa dóor sax man mi nga xam ne sama yoon newu ci dinaa di naa ko doomu bëgg de dóor mu daan dina am ci bu fekkee songul ñëpp nee nañ day daw yooru jël sa tànk bi bu dee songul doomu daan doo daa bëgg sa ñu bëre parce que ñu bëree bëre dañoo foog ne man mënumaa bëre. dañoo umpale kan mooy wul. voilà dama dama dama ñëw di parax di ñu foog ne ma do maa gën a nante doo daluma. ndeysaan combat baa ngi noonu dox ci diggante ak Pakola ak bébé guy gi avertissement pour bébé guy gi ndeysaan benn avertissement pour bébé guy gi ñaar ndeysaan arbitre baa ngi noonu di waaj a sifflé sifflé na bi laajagul arbitre laajal ba mu ne la pare naa nga doog a sifflé ndeysaan arbitre sifflé na Pokola mu ngi dox ci kawam daa bëgg a xeex ak Bébé Gouy Gui ndeysaan moom ngeen jàkkaar lool Bébé Gouy Gui moo la wan ginnaaw naaw jo jiital tànk ndeyjoor Bébé Gouy Gui jiital tànk càmmoñ ña ngay demee latéral ñu ngi dem ci wet ñoom ñaar gis nga Pokola ndeysaan mu ngi dox ci diggante Bébé Gouy Gui waaye Bébé Gouy Gui fa mu jóge woon la dellu ndeysaan mu ngi dellu ci digg géew bi ñëpp xam nañu Pokola day xeex gis nga cokkaas na Pokola cokkaas na Bébé Gouy Gui daa bëgg a fayu. ndeysaan arbi bi sifle na Bébé Gouy Gui ak mu ne ko Pokola <laughs> Bébé Gouy Gui cokkaas na ndeysaan Pokola mu ngi koy déglu ndeysaan Bébé Gouy Gui ak Pokola ndeysaan Pokola dem na Ardo ñëwaat Ndeysaan Pokola dem na Ardo ñëwaat Ndeysaan Pokola dem ngi lewaatoo ñoom ñaar Bébé guy Gui ak Pokola Ndeysaan Bébé ak Pokola Ndeysaan maar le sarax bi bari na maar le combat sarax si bari na Ndeysaan Bébé Guy Gi ak Pokola Ndeysaan Marley ngay saraxe Ndeysaan Bébé Guy Gi ak Pokola ñoom ñaari xale yi ñu ngi noonu ndege ñente ba tey Ndeysaan Bébé Guy Gi Pokola Ndeysaan Bébé Guy Gi daa tëj xeex bi Pokola day ñëw Pokola day xeex si Bébé Gouy Gui jël na ko maa la waxoon day xeex yàgg-yàgg mu xamul nu muy def day xeex Pokola daa bàyyi ni ko ñëpp xamee woon ndaysaan génn nañ saaku yi est-ce du jël avertissement jël quatre avertissement Pokola bu amee cinq avertissement dañ koy disqualifié day ñàkk combat bi arbitre bi yi génnee ko loolu ba ci saako yi génnee ko ndeysaan gis nga mu ngi koy yóbbu ñoom ñaar combat bi ndeysaan ñoom ñaar ku ci négligé tuuti ñu disqualifié la Bébé Gouy Gui Pokola ndeysaan Bébé Gouy Gui Pokola wàccee na garde bi ndeysaan Bébé Gouy Gui Pokola Ousseyn noo gisee combat waa ji li bi yàgg na mais xale yi fi mu toll nii dañuy dem yee fi mu toll nii dañuy dem yee ndax boo xoolee kii di Pokola moo ci quatre avertissement fi mu toll nii kii di guy gi fi mu toll dafa war a gérer temps bi rek bu ko gérer amaana bu génnaatee sax bu ñëwee ñu jox ko ndam moo tax fi mu toll nii combat calcul boo xoolee day day day cokkaas taxaw di xaar Pokola def erreur mu juumloo ko daan ko bàyyi ji li. Pokola la waroon bëree combat non ndox du bàyyi yoonu bàyyi ji li Pokola ñëpp xamee nañ ko bër ak xeex. mais des fois xale dañuy ñëw ba ci biir di bàyyante xel woo ko woon bàyyi xel dafa woo ñëw rek appliqué li nga xamante ni moom la yàgg def di ci am ndam bu ko defee rek yàlla mën na dogal mu am ci ndam mais dafa ñëw sóoraale ki nga xamante ni mooy guy gi ba combat bi yegg fii fi mu toll nag li li ko war mooy mu gérer ko am defet wala mu profité bëre bu ko yàlla may ndam mu xam ne noonu la su temps bi jeexee fii wala su génnaatee dañuy jox ki nga xamante ni mooy guy gi victoire bi bàyyi ji yaa ngi ci combat bi ba tey ndox ak bébé guy gi ndaysaan pokala bébé guy gi ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan pokala bébé guy gi bébé guy gi dóoraat na dóor na bébé guy gi mu ngi dóor bébé guy gi mu ngi dóor ndaysaan bébé guy gi mu ngi dóor ndaysaan Bébé Gouy Gui mu ngi door uppercut déet waay est-ce que daan na ko la muy def xoolal fecc wa waaye Bébé daan na xoolal Ama Adama Adama Ama Sène kontaan na Ama Sène a Eumeu Sène mu ngi daw doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam daan na ndeysaan doomam daan na doomam la doomam la ndeysaan oh. doomam daan na ay sa yaram daw na waay bi t-shirt bi lan la. alléluia alléluia alléluia. samedi bi wax naa la kii sama rakku yaay la bu bokk ak semaine ndey ak baay combat ba muy des deux semaines la kii gaañu toog naa une semaine entraînement kii su may ñëwee saa day toog ci oto bi di may ay 1000 francs 1000 francs 2000 doom billaahi toog naa une semaine entraînement ndax kii maa ko doon yóbbu hôpital ba mu gaañu sama loxo si oto billaahi kon combat bi mënu ma ko ñàkk. non ci ni nga bëree Pokola ba daan. waaw Pokola moom yàlla ma may ndam si kawam boo buggee nekk champion foog nga daal champion munu ma ko du dara mais yàlla ma sutura may ma ndam maa ci sant yàlla suñu borom bu baax a baax di ñaanal Eumeu Sène junior mbëri bëri géejuwaay yëpp yal na leen yàlla may ndam di nuyuwaat waa géejuwaay bu baax a baax. ñëpp dañu Pokola ci xeex xeexul nga nga si ko ci xeex ba pare daan ko ci bëri. dama la ne wax naa la ko man balaa maa mun a bëre ma bëreeg ndaanaan bu mun xeex mun a bëre caatu montagne moo ko sut ko ëpp ko waxuma la kii de grand combat laay bëre promoteur ma jox grand combat du ma bëre kii dama ko mayoon chance Pikine laa dee laay delluwaat champion yi mag a mag yi poids lourd yi nga favori dëgg la lamb ji yenn saa yi ma ñaan yàlla yàlla may ma dem ci kawam sama ah. supporter li ma wax ñoom pare wax naa ko ñoom ba pare instant ah, ah. yi victoire lañ jël si rek pour ñibbi waaw waxu biir la waxu biir la waaw ñëpp dañoo bàqee ni tey da ngaa fas yéene xeex ak ki nga xamante ne mooy Marley est-ce que xeex boobu da nga koy non moom mooy xool lu ko neex lu ko neex lu mu andi ma andi lu des loolu dara waaw. nee moom pare na ci lépp loo ko woo ah, kon yàlla baax na yàlla ñu lañu woote jàmm. beneen la bi ñu xamoon diggante 2011 2010 est-ce que dinañ ko gisaat. nekkul boobu moo fi ne ba tey waaw ah, moo fi ne ba tey. laaj. non ndam rek concentration déglu say coach ñëw def leen li ma waxoon rek prib dib rek ñu dem seen yoon. li ma bëgg a xam ban jour nga jógee Mar Fafa. Mar Fafa ko laa ngeen ban heure ay 9h laa fa jóge. waaw. waaw ngeen boo fi ñëw jëm directement fii nii. fii fii laa juba si directement jaar na fenn. non dara bëgg lamb ji rek bi nga ñëwee mar gis nga li fa fekk kon aw ma droit caaxaan. prix rek dem suñu yoon. li ma la waxoon rek mosuma see teggi. nan nga ma nan nga mën a expliquer génn bi nga fa génn. xol bu tooy ak mbégte xam naa su may dugg si mbégte laay doxe incha allahu rabi. loolu rek la mbégte laa génne te su may dugu mbégte laa génne duggee waaw loolu rek la. di nga li ma lay wax nii sama xol dafa tooy. di nga ndax li ma andi loolu la quoi. di nga xeex ma woo ma wuyu ko. te xaaruma mu woo ma kii abbi bu si la may dal si kawam aw ma lu ma ko xaar yéen teg seen caméra su ma tegee si kaw sama tànk ginnaaw damay wax promoteur mu dagg sama xaalis. Ah. prix dip. dañ la ko dee wala da nga koo man noonu laa mel sama lamb même mbapat boo duggee si bi di xool sama bopp man aw ma loolu abib sif la may dal ci kaw lu leer laa lay tegal aja mbay si mbay nuyu naa waa maa lay siyaar baay jili sant kay lu lay indi ci làmb waa xam nga rek na moon làmb nii xam nga ñëw seetaan si ànd ak sama doomu ndey jës mooy loolu noonu tey nga xam ku ne na sa diggante ak Garga Mbossé yóbbu nga ko tàkkusaan bu ne mu bëre ji boo du gisee tey gis mbëri actuellement ni ñu ci làmb mun nga ma wax kan moo ci gën a pare non lamb moom xam nga may ziar waa parcelle yëpp 1 26 xam nga di ñaanal Modou Ndam ak ku fa am combat lamb ji moom kalmu nduur moom pare na waaw <laughs> non gis naa ne pare na quoi xam rek <laughs> ay séeréer leen xam nañ <laughs> mbëru séeréer bu pare waaw. mbër mën nañ koo jàpp ci gàllaaj ba du toll bëri. waaw loolu day day am billaahi day am de parfois ñu jàpp la bët mooy lool noonu doo mën a bëri affaire yooyu noonu loolu day am si làmb billaahi yoo xam nga lool sax xaw ma lool ah si ah bàjji la xam nga lépp <laughs> daa ngeen bu mbër ngeen dem ci làmb nga xam ne adversaire bi déminé nañ ko mystiquement mën nañ koo jeex si day am am na am na benn yoon ndax garga li ma dara ànd ak moom yëpp benn defet la ma sa am waaw bi ñu daree si lamb affaire yooyu noonu mais am na jour boo xam ne bi muy daanu xam naa. dala ànd ba maanaam bi ngeen dalee ànd ba léegi benn defet la am. non bi ñu dalee ànd sax du ma ne benn defet mais bi ma ko dalee yor. stigam voilà loolu laay wax quoi. muy ban koom moo ko booñaa mais kere xam naa ne jekkul. waaw si. non ci toogaay bi ak xam nga ak mun doon kii mooy loolu mooy loolu noonu barke alxuraan. waaw xamoon naa carrément jeekul quoi. waaw mi ngi Amérique. léegi mu ñëw incha allah daa am lu kii rek yaa ma gën a xam doole xam nga mooy loolu noonu ñëw waaw doomu séeréer bi xam nga foofu mu ñëw. bu leer. bilaay àdduna ñëpp a ko namu. te fii buñ fi wàccee nga xam ne lépp dëgg la. <laughs> sa ku ñu defal dara. tey su ma nuyoo 11 Pro Max la. kon naguyoo ku ko wax c' foo ma wax ko barke yonent yàlla Muhammad maa lay nuyu borom Brésil yàlla na sa jaamu yàgg yaa tax ma wuyoo Onze Pro Max. sama xarit. Baye naa la Baye borom Massare. sant yàlla bu baax am na jàmm. ñëw naa vendredi nag bañ ne deux jours la màggal gi ci laa ñokkale. waaw ndax xam nga man fu ma nekk rek damaa war a màggal si. waaw man fu ma nekk dama war a. tey di nga ñëw ci làmb ji. ndax yow mi ne Brésil chaque fois. lamb yi ngay seetaan lamb ju ne da nga koy seetaan wasaare di ma woo naanu bàyyi jiili gis naa lii mu ngi nice mu ngi yëg tey combat bi boo doon faral kan nga faral. waaw combat bi na comme li ma wax për rek tey moom daanaka bàyyi jiili tey lamb laa faral daal ndax gis combat moom ah képp kuy amateur foo ko dégg da ngaa war a ñëw ndax lii ñun lañ ko defal waa parce que dama daan nekk Brésil ku dégg bëccëg amul benn lamb bu ñu mës a kon bu ñu ñëwee day tey lamb ñëw dañoo war a ñëw toog seetaan waaw. neex. waaw dina neex nag mais maa ngi ñaan ëbbali ëbbali comme parcelle la dëkk te ñun ay doomu parcelle la yàlla ko yàlla may ndam daal. tey jotul nga doon promoteur ñëw ci làmb investir pour tëgg xale parce que bëri nga tekki sa ngemb mais teewul bàyyi woo làmb ba waa waaw loolu moom ñu ngi ci nag bàyyi jëli parce que sama papa dafa ma ko ñaanaloon ba may bëre moom dafa ma xamal ne ma bëgguma bëre bi mais maa ngi lay ñaanal nga nekk promoteur waaw. dinaa ñëw kër ga ñu gën ko yaatal. waaw ba coono jëf. li nga koy gis nii dool ji ëpp na noonu doole ji ëpp noonu waaye kii di buusita loo ci mën a xam ba mën xam ko ci daal saa dem di yo ba saa buy dem xam naa ne day dem saa dem na ko lu wóor a yëkkati lu wóor na ko yëkkati sinon bu ko lu wóor yëkkatiwul xam naa ne excès de confiance bi mu am nii bu amul chance dina ko ndax maa Malick Ndiaye tracé lu ko waay ñàkk a ñàkk a xam xam ne naan la ci bëre mën naa bëre mën naa xeex kii di bu set nag na bàyyi public bi ne mu bëre a xel ndax lamb lamb ji nii mën na ko ubbi lu bëre bëre bëre ndax Malick boo xoolee xawoon nañ ko fàtte mais moom moo gis nga gis li may wax ndaanaan na pied ndaanaanu bëri la foo ko naan la moom Malick déggoo li ma la wax foo ko toll day moo tax ma ne buy dem lu leer laan nañu ko yëkkati lu leer bés bu ko yëkkatiwul billaay dina am lu ko bett bàyyi jili ay ta ñu ngi xeex ñoom ñaar Malick Ndiaye fu Bou Siteu Malick Ndiaye day changé pied ñaari tànk yëpp ay bëre ndeysaan Malick Ndiaye 37 fu ak Bou Siteu déedéet ndax du bàyyi yoonam 2 moom ngeen jàkkaarloo Malick Ndiaye 37 fu moo leen woon ginnaaw ñu ngi fii ci arène nationale waa rent DKR production ñooñu fi woo ndaysaan mu nekk combat boo xamante ni ñëpp koy xaar Malick Ndiaye 37 fu Bou Siteu. Bou Siteu dugal na léegi coup bu daal sax vite fait. nga yaakaar du lu mu def nii. mais Malick Ndiaye ba repère bi ba fàttewul pertu repère. Ah, waaye en tout cas bu jàppee xam fi mu doon jëm de. waa loolu am na na bëri daa nekk si moom waaye loo ci mën a boo ci mën a xam ba mu xam ko ci daal mooy amateur fi mu toll ñëpp a ngi concentré bu bàyyi ji ci làmb ji. c'est normal Malick Ndiaye 37 fu dafa gëj a bëre suñu wéy làmb ji faw mu perte tuuti repère waaye bu Siteu bu mu basé wu ci loolu ndax ñoom ñaar dinañ bëre dinañ xeex combat bi daj nañ ci lu ne. pour Malick Ndiaye 37 fu ñëw bëre si gis nga ñëw na ci làmb ji ñoom ñaar ngi noonu. moo tax léegi ñëw na ne ana ñu waxoon ne damay daw maa ngi nii ana ñu waxoon damay daw mu ne ko làmb baaxoo coow. daw na jëli ko. dinañ xeex Bou Siteu ngi dox ci koom. Bou mel ni daa gis yoon bi baa jiili. gis na yoon bi Malick door na kubu dal. waa ñi mi waaye Malick Ndiaye xeex bi mi xeex nii xeexu mbedd la baa jiili. Malick Ndiaye yor na mbat bu garaaw Ousseyn. Eh, waaye seen pied bu garaaw est ce que moo ngi ci moom ba léegi. ah nañ xool waaye en tout cas daal ñoom ñaar ñaari pànk ñoo bëre ñaar ñu pànk ñooy laale. kii pànk la kii pangalang la. ken mooy pànk. <laughs> Malick Ndiaye mooy pànk bu Siteu mooy pangalang bi. <laughs> waaw Ousseyn luy différence pànk ak pangalang. ñooy eh, xeex door mu daanu dina am. bi boo xamee door mu daanu dina am. xam nga am na ñoo xamante ne bu ñu dox bàyyi jili dañuy bondé. mais am na ñoo xam ne bu ñuy dox dañuy bond boole koog tëb loolu mooy pangalang bi. Ah, ndeysaan. ñoom bu si day bondé bu may di tëb. di tëb maa ngi ñaay buy dox day bondé. <laughs> ah. ndeysaan lamba gi. Eh, golo. ma waaye xam nga ni làmb ji mënu woon ñàkk am Ousseyn. mukk mukk mukk baa ji bu si ta Malick Ndiaye 37. combat bi sax gaaw abit bàyyi leen. Habib baa ngi wax ak ñoom waaye gëm naa ne mbokk yi li mu leen wax mooy bëre leen Habib bi sulu waat na ci diggante Malick Ndiaye 37 fou bu Siteu mbokk yi moo takk téere yi ci bopp bi takk moosu bu xonk bi ci dënd bi daw na yooru ma bu yooru na yooru na yooru na doon na ko Malick doon na ko bu daw na jàpp dinañ xeex ñoom ñaar parce que ñoom ñaar jàppante lañ bu Siteu Malick Ndiaye ngi door ci suuf. ñu baaxul baax na baaxul baaxul. Ah. oh bu Siteu plaqué na ko. daan na ko. Bou Siteu daan ba pare dóor ko. daan na ko ba pare dóor ko. Bou Siteu daan na ko dóor ko. Eh, Bou Siteu. na ko ñu bëre. xam Siteu. xaar waaw daal xaar. Liss na gars loolu à Sifur la. wuy ma. voilà jamono miiru Thiam mi. miiru waaw déglu eh, eh, ma tudd ko. Eh, wuy ma. dëkkanteel wuy ma. wuy ma dëkkanteel ak moom mais bu ko dépassé. dégg nga mais Ndiago mais Ndiago dama koy coob dama koy coob. ndax nga mat gémmiñ gi laa mat dama bàyyi wax ji. gémmiñ gi laa mat dama bàyyi wax ji ndax lii la ñaan lii la jaan daf ñuy bëgg a ñëpp. ndax. Ago nuyu maa ngi lay fay. ci loone maa ngi ni maa ngi am jàmm baax a baax. lan moo xew nga wàcc rek booy tongal la nii ne dina may jàmm. jàmm ak salaam rek loolu la rek garaaw loolu làmb la rek làmb la rek amul solo. daal de Sandwich da la doon dëkk. loolu làmb la rek. moom moom yaakaar naa ne bu bëree loog man rek làmbam neexul mais yàlla baax na. mais pare nga pour Daaru Sandi. man léegi sax bëgg naa bëri moom léegi moom laa bëgg a bëreel. Daaru Sandi si boppam. léegi moom a bëreel. waaw bu la promoteur seet na bëgg naa bëri moom waaw. wax looy wax looy wax waa làmb. waaw di wax laa waa làmb ñu gën a organiser rek parce que làmb tamit wax dëgg yàlla boo xoolee làmb ji nii tey. xoolal na làmb ji neexee moo lay won ne tey gaay gaay làmb ñoo ko moom quoi wax dëgg yàlla làmb suñu yëpp la billaahi mais yàlla yàlla def jàmm rek yàlla yàlla def jàmm xam nga làmb moom ñu ngi nii et puis rek mooy loolu noonu mais yàlla baax na yàlla baax na daam seen nuyu. Ibrahima fay naa la. ci loonee. waaw sant yàlla bu baax ci kaw bi. mel ni keroog bi nga amee ba léegi yaa ngi toog loolu kenn gisul fenn. waaw maa ngi toog di xaar xam rek. lam moom daa baaxoo xam nga rek boo bëree ba daan def ndànk toog xool ba gis lu baax. sa boobaa ak léegi bi nga bëree ak léegi est-ce que ñu ngi lay proposer ay adversaire waaw proposer nañu adversaire yu bëri sax ba ñu journée bi rek proposer nañu si adversaire mais tamit lamb doxawul noonu parce que tamit man dama am ay kilifa dama am samay grand yoo xam ne balaa maa dugg dara moo tànn ay maam góor ay grand papa Guèye am na Moustapha Massa Ilimane Isma sama grand yi balaa maa dugg dara fu mu waxtaan ak ñoom lépp lu ñu àndul ànduma ci dama dama nekk benn structure lan mooy problème bi li lay proposé dañ leen a xeeb wala da nga bëgg ñu yóbbu ñu yóbbu ñu ñëpp ñooñu. man dama bëgg ku may rey dama bëgg ku may rey ku mu mën laa bëgg. da bëgg. koo xam dañ naan moo mën. comme kan. waaw exemple doo fi nekk di taamu naan ay kii doo fi nekk di tudd féew comme tudd bëre yow. su ma la andilee Youssou Ndour bu Balla Gaye loo may wax. ñu ay morom lañ mais wutuma ko. wutuloo ko. am na mbër bu ma woo. ni ma sa diggante yaag moom moom rek la bëgg. kooku la xale Thiès. Thiès daa bëri xale de bu nga fa am naa sa bopp. laay na liggéeyaat ba kanam. maa xeeb laay goote. non xew ma ko sax xew ma de maa fee ma gën a yaa sax ku ñu tëj baaxul waaw. tool yi ñan nga gën a bëgg bëgg duñ bëgg mais da ngay xaar rek ba promoteur néew ja proposé lu jaaru nga jël ko. da ngaa ñëw seetaan si lamb. waaw tey damaa ñëw seetaan si di ñaanal Obeuli suñu borom may ko ndam parce que doomu parcelle la. kontaan naa ci. yaa ngi fi Moussine wàccal. Kañ kañ waay. Eh. wàccal. moo ñu di bëre. yow yow kaw kaw nga amoo xaalis kaa ñu bëre. wàccal. mais lan moo doon nga ñeme ko. waaw lu doon bëri moo ko ñeme. kii eh kii man naa ak moom promoteur bi dañoo joxoon da kaa jox yow eh eh kii eh eh. eh. kii kii promoteur bi da kaa joxoon 400000 jox ma 400000 promoteur bi amatul xaalis mu perte xaalisam loolu riba la na ñu ñu bëre yow maa yor yoo lekkoon xaalisu jàmbur kaa ñu bëre. Adama jëlee moom. yow tàppan nga xaalisu jàmbur lañ lekkoon boo ko lekkee riba la. mais est ce ma ñàkk sama ndey ak sama baay bu wàccoon fii nag ma xeex ak moom yow da nga man waaw yow da ah, bu. ci loonee. waaw sant yàlla. su ma juumul tey nga woon jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy mobile mais mobile jotul ñëw nga ñëw tey lan moo la andi fii ci stade waaw sant yàlla rek ñëw seetaan si lam parce que ñun lam la ñu bëgg mooy sunu mooy sunu ëpp la dañuy ñaan yàlla li ko tee wala li ko tax ñëwul mu wàcc ko mu nekk si jaam salaam parce que kenn bëggewu ko nii jaam ak pexem yàlla ak dogalam xëj na yàlla moo ko dogale nii quoi waaw. mais dama gis léegi ki nga xamante mooy Kara Dollé mu ñëw dëkk la nee na boo wàccee mu duma la parce que dañ la joxoon avance jox avance promoteur bi amatul amatul xaalis te boo lekkee xaalis bi riba. Kara Dollé mbaxal la du man ak moom moom mbaxal la. waaw moom ak Ameth Lagros la wala Boursine Dóor. sama xelam yooyu laa ci nekk dañ leen dañoo doxoon seen combat yi ñaar. doxuñu woon sama combat bi may bëre petit combat dañu war na bëre man ak moom loolu yàgg na ni moom dépassé naa ko fii mu ne nii man ak moom li may fekkook li muy fekku bu moom loolu la. mais du leneen mais bañu ma ko pour leen nag mais prix yi moo wute waaw. mais sa combat ak mobile. gannaaw nekk fi da ngay toog xaar ko ba ngeen bëre wala da nga wut dañ lay wutoo yeneen adversaire non man toogu may xaar kenn damay bëre. waaw bu ma joxoon avance tey tey ma jël bëre. fi mu toll nii bu la gannaaw mobile nekk fi kan ak kan nga yaakaar ne ñoom combat. non booy mbër yi dañoo fuy koo si laaj mooy loolu waaw. yaa sama xarit la waaw waaw buur siin mi. xanaa ñëpp ay champion samay nit. samay nit ak samay mbër. waaw. kon ñoo fi nekk ay adversaire non booy mbër yi dañoo fuuy sax koo si day yaakaar ne mooy lool mais am na ñoo na loo te soo ko waxee nit ñi dañuy xam ne li raisonnable la. dañ ma jox Moussa Ndoye. fuuy bële. Moussa Ndoye wala Sarko. waaw diggante ak Sarko neex. waaw Sarko sax maa man fuuf waaw. Assane naa. waaw maa lay fay. mel ni tey nga ñëw en tant que amateur toog di seetaan. waaw dama ñëw en tant que amateur félicité ñoom Ale ak Jimbo ak Pape xam nga làmb nii la rek dangay géej la quoi ku nekk mën na ñëw rek bay sa dem ma leen di félicité ñaanal leen yàlla taxaw leen ba ëllëg ñu man leneen. jox ñëpp rendez bi nag la vingt octobre fils de Balla général Malika. mais ñu gis lamb jooju. saa boo ko jàppee coow lu day bëri. lan moo nekk ba neex xam nga lamb day toll foo xam ne day jaay boppam mais combat ba moo jaay boppam te mardi ci signature bi dañ si xam dara incha allah. diggante de Balla général Malika ay ndaanaanu lamb la. ñu tuddee ko ndaanaan nag Bamba Fall borom Medina su jour ba le 24 Bamba dina wane boppam. ma wane sam de di si gis dara incha allah waaw. kon bala 24. bala 24 incha allah. xolam moo rafet si moom kersa. barki Seydina Mohamed. dama koy ndam yàlla na ko yàlla defal ndam. kii Baye Fall la barki Alxuraan. yàlla na ko yàlla defal jàmm kii du ma ñibbi. damay toog mbooloo bi yëpp toog ñu xaar mu am ndam ñu ñibbandoo barki Serigne Touba yàlla la yàlla defal jàmm di sant Salba bu baax sama ménagère kii ndeysaan lu ne lay des si man. mais ñëpp yaakaar nañu doo xeex ak Malick Ndiaye. non dama doon xànju rek moom dof la ay yéen leer na ñu dof la moo dama ko nax dama ne ko tey rek laa lay rey. daan nga ko ba pare dem dóor ko dóoraat. non dama ko woon ne xale dama koy ba pare toog si kaw ñaf ko ñaf yi métti noonu la demee. ragaluma loolu. waa CNG bu la neexee sax nañ ma dagg. moo ma gënal ay millions. te parce que wax ji bëri na trop. coow li bëri na. bu site bu site. moo tax tey may ñëw confirmer. ah ki ci des xam ngeen ko. ki ci des. daa daan toog de xaar di déglu. ah léegi kon kenn du wax. jarul wax xam na kan la. xam na ko kii xam na kala te te combat boobu ñaar lañ.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 waay dégg ko ndeysaan waaw ndeysaan ma ngay njuug ba Parcelles Assainies nee na deret dafa foor ndeysaan Ibou Ndiaye ma ngay génne ndeysaan la ca biir ngémb li ndeysaan lo set lo set lo set lo set Doudou Sané. nagamu. waaw sant borom bu baax a baax. da ngay di kalandoo galaaj. non non. aji loolu. naa la bu la ñu indi. mais ñu ngi ñaanal nag ñu ñu ngi ñaan yàlla nag. combat bu ñu dese nii euh, ñu ci euh, kontaan nañu trop. waa Diofior waa région de Fatick gis nañu taxawaay bi. gars yi taxawal nañu dëgg ci bés bi quoi demal nañu bés bi te lii la ñu soxla woon quoi chanteur. yaa ngi bëre le set. waaw may bëre le set. moo tax la nga wàcc ci lutte simple bi. moo tax gisuñu la nga wàcc ci lutte simple. waaw gis nga moom laay waajal ni ci préparation laa nekk euh, di woo fan si nag di woo ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi le 7 novembre bi. mbaa dina sërës dina sërës grand combat la quoi waaw. kalandoo bi ci lay ñëw. ah kalandoo gàllaaj ma dara. waaw ah, kay. booy doomu may jàmm booy. daa mel ni xaalis dugg na de. man xaalis ñun xaalis daf ñu dugal ci ci dugal. ah lan moo la a yow xam nga loolu ba pare nga ma koy laaj. mais tey dañu gis stade bi nu mu mel mu mel ni sénégalais yi namoon nañu làmb ko maye. xanaa loolu moo gën a ti neex. lu neex ñu. gan wàll gi yëpp dañ ko ak li ngeen investir ci may nañu deux mille cinq cent billets loolu ci bëggati nekk jàmm. mais ni nga gisee mbër yi ñu dugg si bëre wane jom wane fula convaincre na la nga tëggaat beneen suuf. mais ñun de façon am nañu ay mbër yu des. faw ñu tëggaat te dañu tëggaat sax. góol bu sab diggante moom euh, xale bi nga xamante ne mooy Pape Thiam. Pape Thiam dafa am blessure. ban journée ngeen ko fas yéene yóbbuwaat. bu bu bu Pape Thiam tane rek bu tanewul fii ak ay février mars mënuñu xaarloo kóol tamit dañu waxante dëgg. am na yoo xam ne xel koy mottali su boobaa soit dañu utali kóol adversaire wala ñu bàyyi ko mu ñu libéré ko mënuñ ko téye nii tamit am na loo xam ne même bu ñu ko CNG maye ñun ñun duñ ko nangu def su boobaa dinañ ko utal adversaire kool bu Bour Sine nangu woon dañ leen doon boole rek mais Bour Sine bëggul non Bour Sine Zarko la bëgg waaye <laughs> ah, mbër bu nekk ak bëgg-bëggam. xam naa ne yaa ngi yaa ngi doxaat yeneen combat yoo xam ne dégg naa yaa ngi ci suuf. di rumandaat pour mu sotti nga joxe avance wala. waaw. ah waaw yu dàq yi. non làmb moom ay combinaison la rek mën na neex mën na bañ a neex dangay ngay jéem a def le maximum pour nga am lu neex li rek. ñi fas yéene bëre daan daan actuellement di nga leen wutal beneen adversaire wala. daan ak daanu ñi daan ak ñi daan waaw suñu raisonnable rek. doo tëggaat la. waaw waaw méttiwul de. voilà. yaa ngi wuli wuli bañ na. la ilaha illallah wuli Adama Diouf ñaari xeex wuli Adama Diouf wuli wuli Adama Diouf daan na ko Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan daan na wuli hee daan na ko wuli daanu na jël xeex na xeex bu metti waaye Wouly xeex na xeex bu met Wouly xeex Arrodjo Wouly Arrodjo Wouly Arrodjo Wouly Arrodjo xaw ma nag mais maa ngi sant maa ngi sant yàlla yàlla sunu borom laay sant ñëw naa entraîné naa ñaan naa bëre naa yàlla may ko na ko man tey sax damaa ñëwoon jéggi du son bëri ak moom parce que ñëpp dañu waxoon ne moom ak tax a bëre. moo tax bi ma songee rek naa. ma ma waaye merci beaucoup ma bëgg ñu contact ñu bëre mais nag. mais bu laabu ji jeex rek. non may ko ci forme bi nga indi tey forme bi. sukat ko deelu ma xam nga ma yow itam nag dama deelul Malick song bi laa deelul song bi loolu gars yi dañoo gaaw xoolal xoolal booy bi xam nga ko adressé ko Moussa hee sa waay gis nga ñii boo ak ren paa bi na mais damay tegal seen bu baax man man xoolal gars yi dañoo teel a bàyyi ku waay gërëm naa ñëpp ci combat nga féete ko suuf rek laa ni jeex na. loolu la ci yaakaar ne Maxime Margane nee na boobu lay bëri du sonu ci xeex nee na ma waxu ko ci combat bi ne combat bi nee na ma ne su ma ñaar doom yéen su ma yoon daw ci yéen bi yoon conseil ma ne mais xoolal boo boobu lay bëri du sonu ci xeex maa njëkk a door maa njëkk a songu waaw suma foor la non non xoolal du ma découragé bu ma duggee bu baaxul damay gënaat mën naa def lu ne ci àdduna man damaa mën a bëre bor kër Souley 84 laa doon def côté 2007 2008 di bor ak 120 kilos yi barke Rasulullah Abdoulaye Ndiour teraanga bi may defal Burkina Faso la ma gisee bu ma daane ma tiit da ay ñag kese ñoo nekk ñu yóbbu ma Diouf Kaola moo demoon am rosa dafa xawoon feebar ma ci yóbbu 85 kilos mu woote fii gars yi ne ko def ko 100 kilos ñoom ma njëkk ñaa leen defante fii ma jàpp gars yi ter nañ ñoom ñëpp ñëpp laa ter ma ma ne ñu yóbbu ko avion boo wàccee avion la jox jàppandi ci Malick Thiam yow sama nga ragal a wax nga nag sa poulet nga faral bu jéem a lakk-lakkal de Adama combat baa ngi noonu de wuro wa dem na këng waxi mbaj dem nañ taali dagg war na mbaam lu waay doon mu lamb kii di Eumeu Sène Junior fekk naa ko géejawaay dem nañ jurbeel ci këram kii di Kalma Ndour fekk naa ko Kër Masaar dem nañ Mar Fafaxo dëkkam dégg ngeen li nga xamante ne jot na ko wax ci adversaire bi kon ñoom ñaar ku ci nekk wax na xas jox sa morom te wolof moone bu jëf taxawee wax day tuxu fi mu toll nii waxtu xuna ndax ñoom ñaar dañoo war a jëflante mbaxam xeex dina am ci bëre bi ñu ngi xool ndaxam bëre dina am ñu ngi xool en tout cas lu mën a xew mooy ñu ngi xool fu wànnante di mu ki bëtam ñu ngi xool fu wàllante di mu jékki gëtam arbitre bi woo leen état mbëri noo ko gisee ah bàyyi ji kombaa bi nag nekk na combat boo xamante ni nii ñoom ñaar ku ci nekk sa yoon génn mën na cee nekk ndax kii di Eumeu Sène combat am day day day metti te day yàgg te day day am xeex day am bëre waaye kii di Kalmu Ndour nag bàyyi ji euh, dafa nekk ci ginnaaw ndaanaan nekk ci ginnaaw Boy Niang te fépp fu Boy Niang yegg xelam day nekk ci mu nekk ci ginnaawam ndax boo xoolee képp koo xamante ne day ñëw bëgg a dëkk Boy Niang moom mi Kalmu Ndour day ñëw tàllal ko ay loxo ne kaa ñu bëre kon nag am na leen loo xamante ni waa Pikine sas nañ ko ko tey ndax boo xoolee waa Pikine yëpp tey bu ñu ñëwee fii ci stade bi grâce à moom la kon tey war naa teg bakkanam rayante waaye nag Eumeu seen dafa naqadee bërël ndax ni nga koy gis ni mu toll doole ji ëpp na noonu te diis gi mu diis teewu koo bëre teewu koo xeex waaye nag bàyyi ji li combat la combat bu mag a ngi ni bàyyi ji. seen dugg ci dóor mu daal. ñàkk ci combat xeex moom dina ci am. waaye séntuwoo ci dóor mu daal déedéet ñoom ñaar ñëpp dañuy xeex ku ci am buntu daw jàpp. waaye dinañ xeex. xeex mënu cee ñàkk baa ji li xam nga ne fecc bu la taxee jéggi dex boo yeggee bul xaar ku la tàcc. ñëwal rek ne ca ñaar ñi dañuy ñëw rek nekk ci baa ji li Habib baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. arbitre bi sifflé na mbokk yi ndeysaan il est 19 minutes. ndeysaan dimanche le 10 octobre 2021 arène nationale rent DKR production Eumeu Sène Kalmu Ndour xeex ba commencé nañ dinañ xeex door mu daanu mbaa du am Kalmu Ndour Eumeu Sène Baye gis nga li ma wax ñi dañuy ñëw rek dal na amul amu ca dal na xeex maa door mu ci bëre lay jeexee de Baye Djil ci bëre lay jeexee ci bëre waaye Eumeu tel naa joxe wet gi njool kenn ko jox wet Baye wet njool kenn du ko jox wet bàyyi ji lii. du bëree def. wet bi daa neex. su maay moom dama naan ko génn ca. mu daw. Kalmu Ndour ko jàpp sori na. dina ko daan wala déet. Ama daan na ko. Ama daan na Kalmu Ndour. daan na Kalmu Ndour. daan na Kalmu Ndour. daan na ko. Ndeysaan Kalmu da ko doon forcer. Ama Sène daan ko. ñu waatal ma tuuti ci combat bi ni nga bëree Calme Ndour ba daan. santaat yàlla bu baax. mënoon nañ ñëw mu def ma noonu ma daan. parce que jël naa ku ci làmb ji. moom it jël na ku ci làmb ji. li am solo mooy. dañ sant yàlla rek mënoon na ma ñëw mu def ma noonu ma daan mënu ma ko yàlla ma dimbali rek ma am daan. la waatoo yéen ñaar nga ko coup ñëpp ñi seetaan yëg nañ ni coup bi dal na est-ce que yow yëgoon nga ni coup bi xam naa ne dóor na coup bu dal moo mu forcé bërëb bi bëgguma wax ci yooyu parce que la bëgguma yooyu bi nga ko daanee bi ko jàppee lan nga ko wax. dama ne ko champion nga der nga ma parce que bëgguma teg kenn ci wona mag boo ña mag yi jigéen junior ay si booy wala yéen bu ween ma avancé di ngeen wax si loolu boo ñëwee sama kër suba dinaa la dàq bu ko wax wax dina yegg taxaw di xaar Marley moom pare na bu yàgg muy xaar Marley boo gisee taxawaay bi nga xam ne yor na corpulence su mbër yor na taay bi retard bi mu retard ci làmb moo jaaxal ñu bari ci làmb ndeysaan mais gis nga ko dafa nekk ci làmb bu dul dara absence yi gëj a bi. xoolal ma coach na ko rëll bi nee na ko defal mouvement nu ko rëll na ko garaawul garaawul maa ngi nii taxaw amul benn problème. daa yàgg a nekk ci làmb. ndaanaan la. absence bi mu absenté ci làmb waa wàññiwu ko dara teewul mu ngi ñëw bokkaat ci làmb. bés bu abib bi sifflé nga xamante ni musu absenté bu abib bi sifflé nga xam ne na ko musu absenté ci làmb. nga ne dina xeex. loolu la. daa xeex bañ xeex xeex. dégg li ma li xale di wax naan par force la xeex bi la bu ca amee nag la cay xew moom a jaaxal waaw bu ñu xeexee la cay xew moo ma jaaxal. seen tànk yi ni ma ko ragale ñépp moom la ñuy xel la ñuy bàyyi xel wóorul benn yoon. dafa mel ni dañuy pil fukk ku ci nekk fi nga war a taxaw. maar la gañe na maar la gañe na wala boo gañee na abit baa ngi leen woo ci digg géew bi di wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. waaye ba ji la la wax ci combat bi rek laa ciy waxaat nee naa la marle buy jóg na xam li ko yëkkati lan la mag lu ko yëkkati. Marley benn avertissement Ousseyn. mag lu ko yëkkati ne war na koo xam ndax na ko réel ndaanaan la na ko réel booy xool moo xaw a ëpp tuuti relance kon Marley combat combat rapproché moo ko moo ko moo ko arrangé moom Marley. ayca arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 10 il est vingt heures quatre minutes na ne ko réel ne ko réel avancé na dox ci koom door na Marley jëli na ko lu ñu nar moytul tànk bi ne ko réel Marley takk na ko ne ko réel Marley jàppante nañ Marley caxabal na ko lu mu nar ne ko réel bañ na Ousseyn ñoom ñaar jàppante nañ ne ko réel Marley caxabalaat na déet ne ko réel bañ na da koy fooram la da lay door tànk moytul Marley ma ngi koy forcer oh Marley bul forcer forcer bi nga koy forcer di ci génnam déet. doole bàyyi Ousseyn mu ngi koy forcer. bàyyi ji li doole feeñ. Ousseyn mu ngi koy biij. bàyyi ji li doole feeñ Marley ma ngay bëre. bàyyi ji li doole feeñ. Maguette la am na doole. doole feeñ na bàyyi Maguette la fi ñu ko jàpp sori na. comme eh, mais est-ce que dina ci génn. combat bi attan na boppam bàyyi ji li damay bañ a wax waaye combat bi attan na boppam. ndeysaan Marley fi mu ko yegg sori na. mais Marley lem joxe dafa bari. est-ce que bi Nakorel bi day see ci combat bi Ousseyn. baa ji li newoon naa la gëj bi mar la bi bi Nakorel gëj a bëre. Ah. bu arbitre bi sifflee ñu fàtte ko. ndeysaan bii jaat na ko. maar la ma ngay daa baaxul. force bi baaxul. Nakorel la. maar la yegg sori na. waaye boo xoolee ko bàyyi relance ko moom problème. tegal na ko war na ko doon wala déet. ko maar la daan na ko daan na maanaam daan nañu ko réel daan nañu ko réel daan nañu ko réel. ah waay géejawaay yëngu na waay waay xale la géejawaay yaa ngi eh géejawaay def nañ quatre sorties quatre victoire eh tey géejawaay jël na ndam li ah waay géejawaay jël na ndam may def damay tëj waaw kon kon mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax loolu moo amoon ci li nga xamante ne mooy arène nationale journée rent DKR production Marley daan na ki nga xamante ne mooy Neko Rell Neko Rell ndaanaan nga ci làmb champion nga ci làmb waaye tey Marley dafa am leneen lu mu indi ci làmb lu bokkul woon ñëw rek façon bëri wax na ne ni bi daf ko bëgg wane na ni lépp yow lañ ko jox yaay favori bi yaa dàq xeex yaa dàq bëre ba wane jom ak fulaak fayda daan la kii di xale bi nga xamante ne mooy Calme Ndour ak Eumeu Sène Junior loolu dinañ ci débat suba incha allahu rabbi mbokk yi xaar leen ñu ci jàmmaarloo Ouzin ak li nga xamante ne ñooy invité mais xaar ñu ci li nga xamante ni mooy <laughs> ndeysaan Adama sama émission ba nu mu tuddati fàtte naa sama émission ba ay waay leen ma ci jàngat làmb Baye Djily dina ñëw ànd ak say yeneen gars yi ko ba mu yëngu incha allah wasaare làmb wasaare làmb wasaare.